waaw PIT génn na léegi nii ci comité central am comité central bi nga xam ne moo doon mooy waajal congrès bi mu dëgmal euh, ci weekend bi muy samedi bi ak dimanche njeexitalu weeru avril. am na ñu mbégte bi ñu gisee camarades yi ñu jógee ci gox-goxaan yëpp ñuy góor ñuy jigéen ñuy ndaw ñuy mag ñu waxtaanee addina fi mu toll waxtaanee Afrique fi mu toll waxtaanee mbiru Sénégal waxtaan woowu moom la ñuy wéyal bu subaa incha allah liñ ciy def mooy seet. jamono fu mu toll seet li jamono laaj gën a bàyyi suñuy xel ak suñu xol ci yi nga xam ne war nañ ko def notamment fii ci Sénégal loolu nag dina bokk itam ci tan ci suñu biir ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp ne ci séquence bi di ubbeeku juróomi at yi di ñëw ñoom ñoo war a jiite suñuy kuréel kuréelu ndaw kuréelu mag kuréel ñu jigéen PIT ci boppam. mën nañoo ngeen wax ci ñetteelu mandat loo xam ne soxal na réew mi lépp loo xam ne réew maa ngi koy waxtaanee bu soobee yàlla dinañ ci waxtaan ci lu yaatu. te ci ubbite congrès bi ci euh laaj bobu nga jibal manam ci yorinu réew mi à partir de 2024 nañ ko tek ci bu baakha baax ci en débat discuter ci absolument sereinement bu sobe yalla di ngeen ci dégg itam xalaatu PIT ak analyse euh ñun dey suñu parti dañu nekk ay jigéen ak i góor yoo dañu am pété suñu parti dafa nekk parti de devoir dafa nekk parti bo xamné da ngay ñew ci ay instances yi ñëw ci kuréel yi fësal sa xalaat sa xalaat nak xalaat la ci biir xalaat yi Euh, maanaam du ñu wax kenn du xalaat ni muy xalaatee waaye li ñuy nam li ñuy téye mooy xalaat yi nga xam ne ñoo gën a euh, yóbbu mbooloo mi donc euh, est-ce que ragal nañu réeroo est-ce que ragal nañu tasaaroo déedéet.